ma da ngay dem plus loin. ah plus loin que non je pense que j'ai pas man conseiller rek laa man ku ma soxla ma ma la. Hmm. c'est affaire médicale li ma ci xam. foo jëndee appareil la veux dire là là on sait que vous êtes sympathisant d'un tel camp est-ce que da ngay continuer de dénoncer. nii rek en mais je suis pas le seul sympathisant quand il y des élections on te dit que la moitié des des des députés ne sont plus de la majorité. tous ces sympathisants là on va les mettre tous ceux qui ont voté pas dans un parti yow laay wax xam nga euh, boo nombee compter le nombre de cartes des partis bi gën a rëy ça ne ça ne couvre pas la Sénégal mais yow laay wax il y a une masse silencieuse qui est là qui va être déterminante yow laay wax da continuer euh, sa combat euh, comme ni nga ko daan defee wala da ngay dem plus loin prochaine marche bu am ne dana taal sama ambulance dem fa bu ñuy dem waa Ngor dina fa dem Touba xaw ma Touba Ndiaye bi ma dégg bi passé on a des gens de manifester mm. de de faire leur tour. Taïba Ndiaye Taïba Ndiaye ah loolu mel noonu boo amatee dinaa dem dinaa laaj les médecins de de Pastef fu ngeen di dem si vous pensez qu'il y a des problèmes appelez-moi on va prévenir xam nga urgence il faut nga prévenir doo xaar ba loxo bi dagg nga koy soog a euh, yóbbu ne da nga koy hôpital loxo bu dagg sax am na nu ñu koy traité pour man ko mën ko delloo.